alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman ya aziz ya karim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy topp ci rajo Kepar FM 99 point 7 fii ci Kaolack fu ngeen mën a nekk ñi ngi leen di nuy di leen di leen dalalaat ci jotaay bi ñu bokk di jotaayu fatawa di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko tey ñu nekk ci jotaayu ñaar téeméer ak ñeent fukk ñett di émission di dalal cheikhana bu baax di ko jox kàddu gi rek nañ ko baaxoo defee mu tijjil ñu jotaay bi suñ noppee ñu jublu ci liggéey bi di sant mbokk yi nga xam ne dañoo woote rek ngir eh, liggéey bi ak di ñaan yal na yàlla nangu seeni ñaan te boole ñu ko kon cheikhana kàddu gaa ngoog arrahmaan arrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله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 mel na li nga tiim ci laaj xaw naa takku kon bismillah alhamdulilah jibi njaay day laaj nee na dafa dégg ñu ne sooy jàpp di raxas yenn cër yi mbaa ngay masaa am nay saar daal yoo xam ne euh, cër bu nekk balaa nga ko war xas euh, maanaam ngëneel nga jàng ko tudd na ci sax ay saar ne sooy raxas sa loxo bi na jàng saar nangam sooy raxas sa tànk na nga na jàng saar nangam su ko defee yooyu daal da koo dégg te bëgg cee xam ndax lu wér la am déet alhamdulilah kuy jàpp de lañ xam ci lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy buy tàmbali mu ne bismillah su jeexalee mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa loolu daal lañ xam ci loo xam ne lu sax lu muy wax waaye nag cër boo raxas jàng dara ci alquran moom loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewu ko naam ahsanallahu ilaykum cheikhana kii nee na dëkk bi mu nekk day dañoo tànn imaam te nee na bokkoon na ca ña ko tànn waaye dañoo dem ba ca kanam daal mu gis seetlu ne am na ay mbir yoo xam ne daal euh, da ko ayibal ci moom tudd na ci misaalu lu mel ni daa dem daal ba dañ seetlu ci moom ne ku mën a jaxasoo ki jigéen la léeg-léegi mu wéet ak ñoom ci anam goo xam ne daal day jur ay sikk sàkk muy laajte nag ndax moom dafay bàyyi jàkk jooju yi di julee këram mbaa nu muy def alhamdulilah mbokk moom yi ak imaamam jooju muy wax ne daa dem ba mu yàgg mu gis ci moom ay lënt yoo xam ne tax na mu jàppe ko ayib lañ koy jëkk dénk mooy na teelu ci mbir mu nekk balaa tuumaal kenn imaam jooju ndax jigéen ñi muy wax ne day faral di jaxasoo ak ñoom ak day wéet ñoom ndax luñ doon ci moom moom lum doon ci ñoom ndax ay jàmbur lañ wala déet su loolu jàllee jaxasoo ga fan la àgg ndax nit ñi na ci ñoo xam ne dañoo bindoo di kaf ak di dugg ak génn kaw ci anam yoo xam ne yu xaw a doy waar la su boobaa nag wàññiwul dara jéem koo jege ne ko imaam kat yow sa place daa nekkatul place boo ordinaire ndax yaay imaam am na xeeti kaf ak ay caaxaan ak ay jigéen ak yu mel noonu yoo xam ne day daal di tax sa daraja wàcc fi kanam nit mi waaye bu xelam dem mukk ci tuumaal ko ci loo xam ne day tax mu nekk ab kàccoor wala faasiq boo xam ne gisatul mën a julli ci gannaawam lu dul su fekkee dafa teg ci bëtam loo xam ne xam na ne lii moom ëpp na su boobaa nag bu ko laayee biir mu nangu ko alhamdulilah su ko nanguwut nag am na droit moom ci boppam bañ a julleeti ci gannaawam ci lu dul muy dem ci kenn nag di am lu mu koy wax wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana Ousmane di woote Kaolack nee na dafa bëggoon a xam ban sarax mooy bi gën ñu defal ko ki nga xam ne moom mooy ki faatu ki jiitu mu ndax day bunt boo xam ne daal nit ñaa ngi ciy def lu ne ñu ngi koy defee nu ne yi tamit bu bëggoon a xam daal lan mooy li ci gën loo xam ne sharia jàngale na ko ci wàllu saraxal koo xam ne dafa faatu. alhamdulilah ki génn àdduna de bokk na ci li gën a li gën a soxla mooy ñaan. taqoog di ko ñaanal daal loola moom mooy li ëpp solo. bu dee lu ñuy def nag mm, sarxeel ko ko yonent bi sallallahu alayhi nee lu gën ci lu ngeen di sarxeel koo xam ne ku génn àdduna mooy am ndox. soo ko mënee gasal ab teen ci barab boo xam ne nit ñi dañoo aajowoo ndox. loola tuyaaba ja bari na. wala nga xëccal ko ab robinet fi béréb boo xam ne ndox ma àggu fa loolu yëpp yu am tuyaaba la naam ahsanallahu ilaykum cheikhana ibrahima ndiaye di wootee kawlax ci jëlañ nee dañoo julli timis fekk asamaan si mi ngi taw nee biñ julee ba noppi daal imaam bi ne eh, duñ boole timis ak gee ndax li tax daal mooy ñoom dafa am eh, dafa am ay tudd yàlla yu ñu war a def daal lu mel ni wasifa guñ euh, war a def ci diggante timis ak gée te nee na loolooy tax duñ mën a boole daal ñaari julli yi muy laajte nag waaw lu mel noonu nu ko sharia attee ak it loo koy digal moom mi nga xam ne situation boobu ci la toll. alhamdulilah boole yaari julli day la koy waral yaari yëpp rekk la lenn li mooy tukki leneen li ci des mooy asamaan su mel noo xam ne ragal nañ ne ku julli julli gi boo delloo ca kër ga. waxtu wa ca des doo mën a ñëwaat ci jàkka ji ngir ngëleen wala ab taw wala ay melax wala yooyu yëpp ànd su ko defee sharia def na ruxsa maanaam ak yombal ne boo jullee timis gi mën ngaa daal di julli gee moom boo jullee tisbaar ji mën ngaa daal di julli takkusaan ànd ak moom ngir nga mën a garder sa julli koo xam ne nag da ngaa waxtu wu jëkk bi ba noppi mu wóor ne doo génn jàkka ba keroog waxtu wa ca des di jot kooku moom amaana aajo woowoo rox sa man nga toog ba waxtu wa ca des jot nga julli loolu wàññiwul dara waaye yow mi nga xam ne nag yow toogoo ci jàkka ji te munoo bañ a dellu sa kër wala ci sa béréb kooku yow bu la neexee mën ngaa daal di julli sa julli gee daal di delluwaat nag ca sa kër boo gisee keneen ku mën a ànd ak yow ci julli ga baax na soo ko julli yow dong su julli gee dem ci sa kër naam asaabakum allahu cheikhana kii day laaj nee na ndax daggan na nit ki di julli la yore kaamilam di ca xool di jàng mu ne it su fekkee ne daggan na kooku su demee ba wara a rukoo mbaa mu nu muy def ak kaamil bi alhamdulilah eh, kay lu dagan la nit ki buy naafila mu xool ci kaamil na muy defit mooy mën naa jël lu mel ne ab tabriya bu kawe boo xam ne su deme bay rukkoo mu daal di jël kaamil ba dugal ko ci buum gi ci nekk ngir xam fam yam daal di koy teg ca tabriye boobee bu rukkoo ba su ba delsiwaat daal di jëlaat ab bu jàngee faatiha ba noppi daal kontinu continuer ci njàngam naam jazakumullahu xeyran cheikhana al ustaaz Omar Sow day laaj nee na dafa am xadis bu wax ne kenn ci yéen su jiitee na woyafal mu ne woyofal googu lu ko tënk maanaam ndax woyofal dañ koy considéré mooy benn aaya mbaa saar wu gàtt lan mooy daal di ko tënk alhamdulilah su kenn ci yéen jiitee ak julli na woyofal xadis bu wér la boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na woyofal ndax amaana ku feebar a ngi ci gannaawam wala ku màggat wala koo xam ne boroomi aajo yu jàmp yu mu war a doxi la kon jàng saar wu gudd gudd gudd ñooñu dañ cay loru ci feebar wala mu màggat wante mu doon boroom yitte mën naa loru ca loola te nag di jaamu si yàlla ba loru ca loolu dañ koy wattandikul ab jullit na gàttal gu ne nag day tolloog rek lay yàlla foofa ki nga xam ne day jiite ci jàkka joo xam ne mbooloo mu bare fa nekk moo xam ne fu ne la jóge te Euh, melokaan yi nit ñëpp nga ca biir màggat ñaa nga ca ñi seenu wér yaram demewul noonoo nga ca ñu yàkkamte it ña nga ca rawatina jàkk yi nga xam ne dañu nekk ci bérébu dañ dul sori bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne seen borom bu ñu nee ci biir jàkk ji boobu seen xel nga ca bitig ba wala ci jaayukaay ba ñooñu julli julli yu gudd ci seen jàkk lool jaaduwul li Maas ibnu Jabal bi nga xamee ne da daan jiite tey guddal saare ya nit ka daa ñëw boole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mer ne ndax dangaa bëgg a fitnaal nit ñi ne ko xanaa mënoo mën a jàng sabbisma rabbikal a'laa ak walleyli idaa yaxshaa yu mel noonu la ko tuddaloon kon saar yooyu mën nañ ci jàpp ni ci saar yu gàtt yi ci la bokk amaa nag koo xam ne day julli ci jàkka joo xam ne wóor na ko ne ay ndawi kese fi des te ak yàkkamti guñ jëm fenn nekku bi comme jàkka joo xam ne daa nekk ci biiru université wala biiru école nga xam ne ay xale rek a fay jàng te amut lu jëmp loo xam ne lu ñu yàkkamti la lu tax ñu wara gàttal julli bi ñooñu suñ guddalee seen julli it nag dara nekku ci waaye guddal ga du doon guddal goo xam ne nag gu jéggi dayoo la leen lu ne daal dañ koy nattable ci nattale ca lam nam jaadoo rek li kulli maqaamin maqaal noonu lañ koy waxe wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mii day laaj nee su fekkee ne dañu am sabab buy waral ñu mën a boole timis ak gee ndax su boobaa dañoo war a bàyyi timis ji ba waxtoom euh, dem tuuti ba sëseg gee gi ñu soog ko ñu soog ko soog leen a boole wala boog mënees na koo julli ci njëlbeenu waxtu wi euh, toftal ca gee alhamdulillah ci war a boole timis ak gee day julli timis ci waxtoom waxtoo timis dafa xat lool muxtaaram dafa xat moo tax su fekkee jant bi so nañu noddu timis rek nañ daal di xaar nit ñi jàpp waajal waxtu wi dikk ñu julli timis suñ solmale julli gee waaye duñ bàyyi waxtu timis ba guddi lañ ko daan xaaral rek lañ koy xaaral mooy buñ noddee ba daaneel lu toll ci diggante juróomi minute ba fukki minute loolu mënees na koo xaar ngir ñuy jóge seeni kër ak ñuy waaj yooyu yëpp mën a agsi su ko defee ñu daal di taxawal timis ji buñ noppee taxawal géej waaye duñ dem ba ca diggante ba naam. ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi Ali Diag lañ koy wax nee na dafa dégg wax ne suñ borom wax ji mu wax ne kullu nafsin daiqatul mawt mooy bakkan bu mën a doon di nga mos dee. mu ne dafa dégg ñu ne li nga xam ne mooy gàncax yi muy garab yéeg yu ko nuru bokk ci bokkul duggul ci wax ji muy laajte ndax loolu wér na am déet alhamdulilah kullu nafsin dha'iqatul mawt mu ne daa dégg ko wax ne gàncax gi bokku ci ala kulli xaal damaa xamul bokku ci lu mu bëgg a wax ndax daa bëgg a wax ne gàncax gi yorul nafs maanaam yorul bakkan comme ni doomu aadama mala yore bakkan wala daa bëgg wax ne gàncax gi ñoom duñ dee ala kulli xaal danañ dee borom bi nee na kullu man alayha faan lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex te loolu dañ cee teg suñ bët garab day taxaw ba mu yàgg nga gis ko mu deewoo ko wala ñu gor ko am ñax di naat muy taw ba mu yàgg taw ba arrêté nga gis ñax ma dee waaye ne ndax daa yor bakkan nag mu mel ne bakkanum nit ak mala loolu amuñu dalil bu koy wane nag amuñu ko waaye xam nañ ne daal lu doon dund la te lépp luy dund daal dana dee su fekkee firee nañ ko noonu mën nañoo jàpp ne laay ji mën na ci dugg mën naa dugg ci biir laay ji fekkee dañoo jàpp ne nafs nag mooy an nafsu saa ila comme koy faral di waxee kon bu boobaa nit ak xayawaan tax ñuy wax waaye ñee seenug dund beneen façon dund la wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi day laaj ne na li nga xam ne mooy julli yoor say loxo ndax dafa am xadis boo ko saxal ni ki doon yi tamit eh, julli eh, teg sa loxo ndeyjoor ci sa kaw loxo càmmoñ ndax loolu dafa am xadis boo xam ne moo koy saxal alhamdulilah julli teg sa loxo ndeyjoor ci sa boole leen teg ci sa dënn day ay xadis yu bare bari ñëw na li ko nettali ci ay saxaaba ëpp nañ fukk jëm ci ñaar fukk kon ñu bare bare bari ñoo ko doxale ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma julli nag yor say loxo gisuñu benn xadis boo xam ne dañ ko doxal jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko jàngale naam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na dafa gis ñoo xam ne suñuy rukon dañuy kabbaar suñu jógee ci rukon yi ba war a dem ci sujjóot yi dañuy kabbaar mu ne waaye dafa gis ñeneen ñoo xam ne duñ doxalee noonu muy laajte nag ban moo ci gën kàbbaar gi ak ñàkk kàbbaar gi ci bërëb yooyu lu ci gën a wér alhamdulilah ndax kii rukkoo day kàbbar bu sigee kàbbaraat damaa ne kii laaj li mu a wax mooy yëkkati loxo waaye kàbbar moom mënta ñàkk ndax mooy nga wax allahu akbar kon kuy julli moom foo mën a toxoo jëm ca fa ca nga ne allahu akbar wala nga ne sami allahu liman hamida wala nga ne rabbana walaka alhamd kon kàbbar gi lim ci jublu kon mooy yëkkati say loxo xam naa loolu la bëgg a wax moo koy kuy rukkoo da yëkkati say loxo boo siggee ci rukkoo itam da ngay yëkkati say loxo noonu la naam athabakum allahu cheikhana mbokk mi day laaj nee na ndax xadis bi xadis bu wér la euh, muy xadis boo xam ne euh, Usmaan ibn Xaniif moo koy nettali nee dafa am benn waay joo xam ne dafa sëggoon ñëwoon ci yéen sallam ne ko ñaanal ma yàlla mu wéral ma nee mu ne ko su soo la soo nammee ma ñaanal la yàlla waaye soo nammee it nga muñ su ko defee yàlla dencal la ko mu yiw nee na mu ne ko ñaanal ma mu ne ko kon soo da jàpp ba set eh, jàpp jàpp gu julli ñaari ràkka su ko defee nga ñaan wax lii mooy allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammadin nabiyi nga xam ne daal li mu wund mooy moom dafay ñaan yàlla jaare ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy yenentu yërmande gi ci ni ko xadis ba waxee muy laajte yi ndax loola wér na ni ki ni ki noonu yi tamit ndax te at tawassul eh, bin nabii sallallahu alayhi wa lu dagan la eh, wala yi tamit al imam ahmad yi lan mooy taxawaayam ci masala boobu kon daal laaj bi noonu la ko tënkee alhamdulillah eh, tawassul di bu fekkee liñ ci jublu rek mooy kerkeraanu jaare ci dara ngir am dara yonente bi sallallahu alayhi wa diine yàlla ji moonu ko jot kon mooy sun wasila ci jot li diine amma li ñu wasila woo xam ne eh, mooy di ñaan ne maa ngi jëmmi diw sàngam wala ci daraje diw sàngam loolu moom saxaaba yi xamuñu ko woon ndax yonente bi alayhi salaatu ci boppam jàngale wu ko xadiis Usmaan bu wér la fi li ci nekk lépp it ba nim jeexe ci ñaan rekk la jëm jëmut ci leneen moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko bu soobee ma ñaanal la mu ne ko ay ci ñaanal ma mu wax ko ne ko yow kat ku ñuy kat yow it da ñaan su ko defee ma ànd ak yow ñaan da ñaan may ñaan moo tax Musaa ko moom li muy wax atawajjahu ilayka bi nabiyika kooku baa boobi baa ul musaaxaba la mooy maa ngi nii di ñaan ànd ak sa yonent bi baa day musaaxaba maa ngi nii di ñaan ànd ak sa yonent bi bépp tawassul boo xam ne gis nga ko ñu wax ko mu jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi dund xamal ne ci ak ñaanam la maanaam bala neexoon nga ne atawassalu bi duaa innabiyika sallallahu alayhi wa sallam daanaka loolu day tolloo li Usmaan ibn Xaniif wax ndax booba yonente baa ngi ci kanamam toog loolu moo tax Omar ibn al-Xattaab radiallahu taala anhu ci ay jamonoom taw bi yeex a wàcc mu génn di def salaatul istisqa mu def ne yaa Abbaas taala natawassalu bika kama kunna natawassalu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam kaay ñu def la wasiila ci ñaan nañ ko daan defee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko ñëwal ñaanal mu daal di ñaan muawiyat ibn abi sufyan def na ko ku ñu wax yazid ibnu aswad al jurashi muy ku ragaloon yàlla te dëddu àdduna te ñu nangu ak ñaanam ba mu defee istisqa mu jullig mbaaw naan ba noppi def na fa yaaye si taal dikkal ñaan ñu wasi ñu tawassul ci sag ñaan mu tàllal ay loxoom ñi ñaan taw bi wàcc xam nga ni Umar ibn Xattaab bi wax ne Abbas kaay ñu def tawassul ci yow bu fekkoon ni ci jëmm la manam ñu tawassul ci sa jëmm kon duñ bàyyi jëmmi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw ci jëmmi Abbas ndax yonente bi ma nga foofee ci xabroom ba tëdd ak jëmmam ju tedd ja kon ñu mën a tawasul rek ci jëmmam noonu wala ci darajaam ndax jëmm moom ak daraja euh, su yonent bay dundee su génnee àdduna lépp ñàkku ci lenn am na jëmm am na daraja waaye bu boo gisee ñu bàyyi ko ñëw ci keneen mooy mbir mi mbirum ñaan la waaye du mbirum jëmm ak mbirum daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewul tawasul ci daraja jàngalewul tawasul ci jëmm lu dul jëmm joo xam ne daa ñëw di la xamal diine wala muy jottali woote bi yàlla bi su booba kooku sa wasila la ci muy jële ci yàlla di la jottali waaye wali wasila woo xam ne day jële ci yow di jottali yàlla woowu moom amut ci chariatul islam naam ahsanallahu ilaykum cheikhana soxna si nee na moom de day faral di tudd yàlla ci làmmiñam waaye daal ci day dem ba yàgg léeg-léeg rek mu mel ni làmmiñ bi dafa taxaw waaye mi ngi tudd yàlla ci xelam mi ngi nag ndax jamono ji nga xam ne làmmiñ ba daa taxaw ci tudd yàlla waaye xel mi moom dañu ca ndax dañ ko ci bindal tiyaaba wala déet alhamdulilah di tudd yàlla cim xel moom loolu du tudd yàlla doo ko fàttaliku rek lañ koy tudde waaye nag bu bëggee tudd yàlla yor ay afkaaram yi muy jàng na fexe nag ba wax ci làmmiñam doote day téem buñ bind di ko liir it loola moom mooy doon la jaaru bu dee laa ilaha illa allah la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na koy wax ci làmmiñam su fekkee ne dafa nar a jaxasoo jaxasoo ci moom jaadu na mu di ko wax ndànk di ko dégg bu foo nit nekkee mu bañ cee yëkkati baatam di leen sonal wala mbiram di nur listal wala lenn waaye mën naa dégtal boppam nag nga xam ne dana wóor ne moom mii li muy jàng mi ngi koy dégg waaye soo ko bàyyee noonu di ko déey bu yàggee wax ci làmmiñ mën naa jaawaloo ak wax cim xel na jéem a góorgóorlu xeex moom rek fexe ba di ko wax ci làmmiñ bi naam. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi mel na ni yegsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay di ñaanal ñëpp rek di ñaanal kilifaay rajo bi di ñaanal techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi. ku ci mel ni alaaji Fafa Cissé ñu ngi koy ñaanal bu baax alaaji Seydou Diallo alaaji Abbas Kan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla nangul leen te defal leen tawfiq di sant bu baax a baax euh, auditrice ak auditeur u Kepar FM. 99 point 7 fii ci Kaolack ñi nga àndoon ak yéen ci seen jotaayi alfatawa li nga xam ne di ko am ay bis bu nekk ci àjjuma ju nekk ci waxtu yi di ñaanal Cheikhna docteur yàlla ko yàlla sàmm dolli ko tawfiq di ko jox kàddu gi rek niñ ko baaxoo defee mu tëjal ñu jotaay bi ñu dig mbokk yi daje incha allahu àjjuma bii di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala bu boole ñu tawfiqam ak ndimbalam gërmandeem Cheikh Abdallah yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu say ñaan kon noonu rek li ñu daal di tàggu mbokk yi ba ca ay bis gee di ñëw kon di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu àggale nu ca ci ak mën akuk tal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh